bonjour bonsoir sama gars. bëggee naa leen bu baax di leen ziar te tamit di leen delloo ziar dañ len jamm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 et comme d'hab gars, c'est votre très cher c'est Kenza Kenza 221 yéen ma Alors xam alors gars, tay nak dañuy wax ci projet Dizihabi bi muy EP bu mu le 29 passé intitulé Outiko Tay nak damay présenter EP bi jël benn son jéem ko décortiquer mais son bu ñuy décortiquer mooy son bi nga xam ne featuring la ak Dip Doundou gis qui a pour loolu kese bon lu tax nag ñu choisir son boobu pour décortiquer ko expliquer nit ñi xam dama bëgg commencer ci son yi nga xam ne da cee sànni expliquer ko ba ñu xamul mën a xam après ñuy soog a mën a jàll ci yeneen son yi sinon buñ expliquer wul son yim nga xam ne daf cee sànni ay pic yeneen rappeurs yi ñim sànni pic mën nañ ko tontu ci diggante bi te bu boobaa rek dañuy réer. moo tax nag ñu préféré wax ci son yi nga xam ne ay pic la ba pare mais avant ñuy xuus ci son bi veuillez s'il vous plaît vous abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et d'activer la cloche de notification pour les autres vidéos qui suivent ay gars yi léegi ñu xooli intro bi ñëwaat soogay wax ci son let's go. ok sama gars comme ni ma leen ko waxee rek ci intro bi bon nee naa leen tey ci Dizzy la ñuy wax. son bi mu am ak featuring ak Dip Doundou Guiss Dizzy Kha moom ku ko xamul dégg nga ko parce que Dizzy yàgg na léegi ci biir game bi Dizzy xa nekk na rappeur yu njëkk a nekk biir Reptile Music et en même temps dalal na rappeur yu bari biir Reptile Music mais gars la question qu'on mooy lu tax Dizzy Kha mënuñu ko dégg ci yenn niveau yi et pourtant bu dee rap dong dafa mën a rap lyricalement il est vraiment fort techniquement il est telement doué lu tax nag mënuñu ko dégg ci yenn niveau yi mooy problème bi Dizzy Kha lan moo ko manqué ba mënuñu ko dégg ci yenn niveau yi public bi la wala ci moom la affaire bi man jaaxal na ma de tout façon mais nag gars attention Dizzy Kha temps yi mi ngi yëngal game bi de waaw waaw yëngal na ko sax laay wax parce que dafa génne projet bu doob projet bu extraordinaire projet bu ñëpp di coow. projet bu nar a jur coow aussi ci biir game bi le projet est intitulé Outiko te sama gars yi boo leen xoolee projet bi dix titres la maanaam dix son moo ci nekk mais nga xool son yi am na ci featuring ak Azza am na ci featuring ak Mao Sidibé am na ci featuring ak Izo am na ci featuring ak Elzo Jam Dong am ci tamit featuring ak Dip Doundou gis nga xool projet bi cinq featuring la am te ñum ko amal yépp ay ndaanaan lañ buñ jógee ci featuring yi ñu ñëw ci côté beat yi boo xoolee projet bi 5 beatmaker ñoo ko sot job ko muy Zizkila moom moo job track 1 track 2 4 5 ak 7 Karabalik beat job track 10 Prési beat job track 3 ak beat job track 8 Abdou beat job track 9 ak track 6 léegi gars yi gis ngeen bit beatmaker yooyu ñoo job projet bi te beatmaker yooyu aussi ku leen xamul dégg nga leen ay beatmaker yu mag lañ bit yu extraordinaire la ñuy dóor léegi duñu def lu dul jàll ci son bu ñu war a décortiquer tey muy track 10 bi Dizzy Kha featuring ak Dip Doundou Guiss qui a pour titre loolu kese ñu expliquer son bi pour ñu xamul xam mais nag attention gars son bi dafa bëri pic de waaw waaw na pic lool bon son bi nag ba mu génnee ñu bëri pic yu Dip dund gis sànd lañ bàyyi xel bàyyiwuñu xel yu diisi xa te diisi xa moom aussi sànni na pic yu bëri sax te boo leen xoolee son bi 3 minutes 19 secondes la bon premier couplet bi diisi xa moo ko dóor deuxième couplet bi dip dund gis moo ko dóor après ci fin bi diisi xaa ñëw tëj ko mais léegi lu ñuy def mooy dañuy déglu premier couplet bi muy partie diisi xaa bi soogee ñëw expliquer buñ jógee foofu soogee jàll ci deuxième couplet bi muy partie dip dund gis bi ok sama gaay léegi ñu xooli couple Dizzy Ha bi cof ci un tout petit peu ñëwaat léegi-léegi ay ca let's go gàtt nangu sa bës ngay guddali tuuñ ah, ki dàq raab mooy ki ëppale gis def ay ma af ay bët soo ma ëffaleg ñi dam leen jox gën a xiif comme ku xëdde man dum la tontu ndax day mel ni dama tëddee sam fiis dal jàmm dama jàpp konf mel ni kenn ci àll waa dañ koy nawe projet bu jàll rek beneen di kat alors gars yi gis ngeen loolu mooy son bi commencement son bi nag Dizzy Ha lu mu teg nee na dangaa bëgg a génn àdduna dugal ci ñun ego trip la rek dañoo tagg seen bopp lu mu bëgg a wax foofu mooy bépp rappeur bu leen di jéem a clash wala di leen sànni pik maanaam dinañ ko suul comme BM Jaay nu mu koy waxee rappeur bu dugg samay 18 woo ambulance Dizzyha foofu lay waxee. ngeen dégluwaat son bi Dizzyha mu ngi naan man dama leen a coob gën a xiif mel ni ku xëddee ay chips man duma la tontu kon day mel ni damay tëddee sama fis bon fii moom gis naa ni pig la boo dégloo am na fu muy waxee naan man duma la tontu kon day mel ni damay tëddee sama fis foofu moom pour man authentique lay waxal parce que authentique moo ko clashoon naan Dizzy Kha mooy mbiskitu label bi maanaam mooy saraxu label bi kon pour man foofu Zeus la tontu ni ko man duma la tontu kon day mel ni damay tëddee sama fis maanaam bu tontoo authentique Zeus day mel ni mu jur doomam ba pare di ko tëddee dafa jàpp ni authentique Zez doomam la te xam ngeen ni kuy tëddee sa doom moom dafa ñaaw ba tey ci biir son bi mu ngi naan bro fëkk sa maison de disque bee xoosu def ay yaay may mu xooñ ci biir cin di leen togg def mami ci biir fii Dizzy xaw One Lyrical lay waxal te boo leen seetloo moom yàgg na sànni One Lyrical pic mais One Lyrical du tontu moo tax tey mu ñëw laalaat One Lyrical ne ko fëkk sa maison de disque parce que One Lyrical signé woon na fi KZ Music mais quitté na fa moo tax mu ne ko sa disque bee xoosu sotti mami ci biir foofu mu ngi wax ak Dip Doundou gis nan ko testicule yi nga doon mariné ci président FIFA bi doyul dooleel mami ci la Dip Doundou gis ñëw jël deuxième couplet bi pour yokk mami ci biir cin bi alors sama gars yi gis ngeen loolu mooy couplet Dizzy Ha bi léegi ñu xooli couplet Dip Doundou gis bi ak mami yum nar a ci cin bi ñu xool ndax dina saf wala du saf ayca let's go. loolu rek fi soo fi bokkul doo frek nee la nga bëgg suñu noonu bëgg bu kenn nangu di doon fekk ni nga luñ lay doyee ñun lan sama gars gis ngeen tuuti ci son bi parti dib dund gis boo dégloo son bi premier pic bi dib dund gis sànni. mooy fi mu ne ku rëkk signé bi man la te duma signé ci label foofu One Lyrical ak Omzo daal lay waxal parce que ñoom ñaar ñoo signé woon KZ Music mais après du coup dañoo quitté KZ Music Moussa Wagué PDG KZ Music nee na lu tax Omzo Dollar ak One Lyrical quitté KZ Music à cause de Dip Doundou Guiss Moussa Wagué ni moom personnellement contacté woon na fi Dip Doundou gis pour mu ñëw signé biir KZ mais Dip Doundou Guiss n'avait pas accepté nanguwul woon moo tax nag Dip ñëw ci son bi ne ku rëkk signé bi man la te duma signé ci label maanaam moom moo tas diggante Omzo Dollar ak One Lyrical ak Kajun Music te moom du fa signé foofu lay waxee alors ngeen dégluwaat son bi mu ngi naan yaa ma sut di ma maccal foo sigi gis sama kanam foofu One Lyrical la tontu parce que One Lyrical moo ko clashoon ci son messi bi ne ko boo may xool force da ngay téen dib dund gis ñëw ci son bi fii tontu ko ne ko sut di ma maccal foo gi gis sama kanam foofu wan lirik lay waxal gaay ba tey ci biir son bi dib dund gis mu ngi naan du yem ci ay rab kese fiji di puta foofu aussi am ñu ko jëlee pic ñu ne di lay waxal parce que ak bis la moo mu ni genre mata dina xam ne libane bi du yem ci ay rab kese te ak bés mooy libane bi nga dégluwaat son bi mu ngi naan am ñaari xottu taat taxul nga toog ci ñaari chaise ñu bari nag jàpp nañ ni fii Dip Doundou Guiss Akhlou Brick Paradise lay waxal parce que ku nekk ak xalaatam mais pour man Dip Doundou gis waxul ak Akhlou Brick lu tax nag ma ni waxul ak Akhlou Brick parce que ñaari xottu taat la wax te xam nga ni benn nit bu nekk ñaari xottu taat ngay am léegi bu dee Akhlou Brick Paradise lay waxal xanaa kat xottu taat la war a wax jiikoo nag pour man Dip Doundou gis Omzo Dolly lay waxal parce que moom buy clash Omzo Dolly lu ci ëpp danaan ko taat dëgg nga ma ëpp kon tey bu ñëwaatee wax waxu xottu taat pour man Omzo Dolly lay lay waxal daal sama xalaat ak sama gis-gis nag laa wax. gaay Dip Doundou Guiss pareegul de ba tey ci biir bi. mu ngi naan dip comme mot de passe turam ngay dugal soog a feeñ fii moom Haeckel lay waxal boo leen fàttalikoo ay temps ci ginnaaw je sais pas si vous vous rappelez ba Haeckel di nekk biir Reptile Music dip dundu gis ak Haeckel defoon nañ fi benn son tuddee ko mot de passe nag foofu lay waxee maanaam moom moo fësal xeekil moo tax nit ñi xam ko. ok sama gaay lii mooy son bi lii laa ci mën a expliquer. mais nak attention de nekul ni lima expliquer expliqué force moo am sama xalat la joxe ak lima ma ñi ñii mën nañ ci d'accord ñeneen ñi aussi mën nañ ci bañ d'accord fi ku nekk ak sa xalaat nit ku nekk sa idée ngay joxe parce que kenn mënu laa wax ni lii moo am par force ku dul artiste bu bind sonwam ñii bu ñu ñii bu ñu waxee suñu xalaat ñeneen tamit mën nañ joxe seen xalaat ñun buñu ñu joxee suñu idée ñeneen ñi mën nañ joxe seen idée parce que pensée yi bokkul bon ñu bëri nag ñu ngi demandé Akhlou Brick ak Dip Doundou gis ndax dañoo am problème ou pas loolu moom duma ci wax lu bëri parce que gisuma luy wane ni problème am na seen diggante lenn de mën naa ko ci wax mooy Akhlou Brick Paradise ak Dip Doundou Guiss seen diggante comme relation couple léegi yi parce que bu xoolee couple léegi yi buñ bëggee bàyyante kenn du wax sa moroom kenn. kenn du wax sa moroom bàyyi ma ku nekk dee jël yoonu boppam bañ a faale moroomam aj gardam fas kanamam waaw diggante Akhlou Brick nag ak Dip Doundou gis comme noonu la rek léegi sama gars yi son baa ngi noonu yéen laay laaj nan ngeen gisee projet Dizzy Ha bi nan ngeen gisee son bi mu def ak Dip Doundou gis qui a pour titre loolu kese à vos naa mu tëmb man moom lii laa leen indiloon tey c'était votre sister Kenza n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification de partager et surtout de liker peace and love ci bon di profito di wax tamit euh, élèves yi nga élèves yi nga xam dañuy def examen gis deux nañ jël Covid 19 Ma ngi leen réussir examen d'office mu peace and love guy